Ndeysaan individuel bi ci catégorie soixante seize dox ci diggante Ismaïla Diop Fatick ak Ngor Ñaax Kaolack Ismaïla Diop ceinture rouge Ngor Ñaax ceinture bleue mbokk yi arbitre bee ngi waaj a sifflé na Ismaïla Diop combat ouverture bi moo bëroon Ñaax daan ko mu dajewaat par final individuel. ci catégorie 76 kilos revanche ga Ismaïla Diop day daanaat ngóor ñaax wala ngóor ñaax day fayu na leen xool fu ñuy mujj ñoom ñaar Ismaïla da koo ñeme na ko ngóor ñaax ndaanaan la Ismaïla Diop daa bëgg a wane boppam fàqan na ko ngóor ñaax fàqan na Ismaïla Diop dox ci kawam Ismaïla Diop taxawaay bi baax na mu ngi bëree arbitre bi nee bëre leen bëre leen bëre bëre leen amul dóor bëre leen amul jàpp ngemb bëre leen jàpp tànk am na jàpp loxo am na xëcc Ngor Ñaax naanaa la daaw Ngor Ñaax bañ na champion CEDEAO Ngor Ñaax tey ñëw na drapeau chef de l'état perte équipe individuel bi lay bëre nii final bi ci catégorie 76 kilos fan la ñuy dina yomb wala déet xale yaa ngi noonu góor ñaax Ismaïla Diop ndeysaan arbitre baa ngay joow drapeau bi rek arbitre baa ngi koy joow ci teewaay arbitre bi atte na atte na avertissement Ngor Niakh avertissement Ismaïla Diop bëre woo leen mbokk yi ñu ngi fii Ngor Niakh toj na dem na ardo bu doon bëre dóor la adversaire bi day kontaan mbokk yi yuuxu Ndeysaan waaw waaw Ngor ñaax arbi bi sifla waan na Ismaïla Diom Ngor ñaax Ismaïla moo la woon ginnaaw Ngor ñaax moo ngeen boo ngeen lu ñuul moom ngeen jàkkaarloo dox ci diggante Fatick ak Kaolack Ismaïla Diop Fatick Ngor Ñaax Kaolack Ismaila daw na lan moo nar a xew diggante Ismaila Diop ak Ñaax lan moo nar a xew jàpp na Ñaax sol na Ngor Ñaax sol na génn na saaku yi Ngor Ñaax génnee na ko Ismaila Diop boo moytuwul làmb ji jeexee noonu Ismaila Diop Ngor Ñaax Ismaila am na ñaari avertissement Ngor ñax sol na ko ñu ngi koy mérefere boo génnee ñàkk ñax Ismaïla Diop Ngor ñax Ismaïla Diop Ngor ñax a koy kal da koy génnee ñàkk na ñàkk na ñàkk na Ngor ñax daan na ko daan na ko arbitre bi siflé na ñax Ngor Niakh avertissement ndeysaan noonu lu xew lu xew trois la noonu la demee trois avertissement la am trois avertissement la am c'est normal mbër mi mu ngi bañ Serigne Ndiaye dugg si na ci géew bi ma ngay mel ni kuy bëri arène waaw waaw moom capitaine Dakar xoolal ka muy àndal ma ngay dongale rek